jërë ngeen jëf ay doomi Sénégal yu jëloon gaal dem Espagne l'observateur ne nañu ñu bari ci ñoom dañu leen delloosiwaat ci réew mi ñaar fukki immigré clandestin yu defoon seeni pexe dem Espagne danañu leen dajale rungu leen dugaleen cib avion wàcce leen aéroport Blaise Diagne ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru octobre te du ca yam ndax journal bi mi ngi ñuy xamal ne suba ci alxames yi dinañu jëlee ca Maroc lu toll ci juróom ñaar fukki doomi Sénégal Sénégal ñuy wax ni immigré clandestin yi ñu war a jële Espagne delloosi fàttaleen ci réew mi seenub lim ëpp na lool migrants yi duggoon Espagne ci weeru sulet ak migrants ya fa wàccoon ci weeru ut ñoom ñëpp la dajale indiwaat leen ci réew mi journalisé ko nañu kilifa yu réewum Espagne yi ñoo ngi waaj rapatrier lim bu takku ci ay doomi Sénégal yu duggoon ci réewum Espagne ci anam yu jaarul ci yoon ci migrants yu duggoon ci Espagne atum 2023 bi nee nañu pour cent yëpp ay sénégalais lañu ay sénégalais yeneen yu jëloon côte yu Tunisie yi dogaale ci géej ga jël leen ba pare bandoo leen ca montagne yi nekk ca frontière bu Tunisie ak Algérie ginnaaw bu ñu leen fitnaale ci lañ leen dugal ci camion dem sànni leen ca montagne mu di xibaar boobu journal bi mi ngi ko jëlee ci waa Human Rights Watch ci ñoom migrants yi am na kenn ku ci wax ci yéenekaay bi na am na benn officier Tunisie bu leen wax ne bu ñu leen fi gisaatee dañ leen di rey journal L'Info bind na réewum Espagne fas na yéene rapatrier la ñuy tàmbali rapatriement gi remaniement ministériel réew mi ay région mu di ay dëkk yoo xam ne in fokk dañ leen ci bàyyi xel cëral leen ci poste ministres ngir ñu mën a am lu ñu xeexee ci élection présidentielle mu di ay élection yooyu le témoin a gis na ne juróoma ngi yu mu jàppone du ñàkk ci ñoom ku ci wuutu Ousmane Sonko doon plan B bu parti Pastef muy El Malick Ndiaye di Bassirou Diomaye Faye di Abbas Fall Birame Souleye Diop wala Guy Marius Sagna bu dee Ousmane Sonko mënut a dem du ñàkk ci ñoom juróom di sàkku mu di ñu delloowaat ko ci liste électorale yi ñu ko seppe suba ci la ci tribunal bu Ziguinchor di wax te ñoom avocat yi am nañ yaakaar ci ne tribunal bi dina leen wax li ñu bëgg a dégg ñu dégg ci l'observateur ne waa RADEL réseau des acteurs de la décentralisation et du développement local ñoo nga woon ca tig-tigal googe mu di ca Casamance ginnaaw Mbour RADEL ci njiital màgget seen maire bu Malicounda ñoo nga woon ca Cap Skirring ngir doon fa saxal ak doon fa lawal banqaasi réseau ba la ñu dajale woon ay maire ay ancien maire ay adjoint au maire ay président conseil départemental ak ay président conseil rural yu bàyyee ko woon ci Ziguinchor ca Sédhiou ak ca Kolda lañ fa doon waxtaane l'observateur nee nañu mooy seet ñu mën def ba taxawal ab politique décentralisation boo xam ne dafay gën taxaw ci wàllu développement territorial dëppale ko nag ak doxinu état bi muy ci wàllu économie locale di ci wàllu aménagement territorial ba ci wàllu environnement wàllu santé di wér gi ci xët mu njëkk soleil national yéenekaay bi nee nañu ci diirub juróom-ñetti at état machine dialyse yu pan ci hangar pèlerin moo jural jaaxle gu rëy ña fa nekk ci woppi insuffisance rénale tëral leen fa l'observateur xëy tëral ci xëtamu njëkk wàllu njàng njàngale mi déficit d'enseignant mu di ñàkkum njàngalekat gi ñu nemmeeku ci réew mi moom la yéene kay bi xëy di gëstu ak di càmbar li ko waral recrutement spécial d'enseignant gi premier ministre doon wax journal bés bi le jour moom ci la xëy xëy ñu xamal ne yëf yi demul dikkul te li ko tere dem journal gu am ci la bokk